Yacine Diouf. ah dañ doon eh, ah tey la 8 mars ah tey la tax togguñu suñu borom kër Mata Samb moo ñu duggal ci waañ bi tey ndax ku ne xam ne ne tey journée de la femme la kon boo amee jëkkër ju mel ni Samb naar mii mu lay duggal ci waañ bi di la defaral ba mu baax comme dab nii la ñuy defal de duñ ñu góoleet nag macha allah suñu jëkkër gi moo dugg ci waañ bi tey gis ngeen def ba mu baax xam nga liy yombul góor ñu bari mënuñu lii de. tey togg ginaar lakk ko ba mu saf yaa ma gën a xam gis nga orne bi kenn mosu koo gis ci xale bu góor man daal kii laay wax sàmm naar mi torop moom laa ñam nii damaa yuxu maa gis lii lim man ñun jigéen ñi mënuñu ko soos boo xamante ni extraordinaire la def kenn mosul gis li nii lay def nag te xoolal bu doon reer rek ngeen jaaxle da koy def ba mu baax tey benn jigéen dugg ci waañ bi tey defuñu dara dañoo xëy tegle suñu ay tànk mu daal di bale ba mu set da ngeen yéex a ñëw fabeere def lépp daal ni tey maay dugg ci waañ bi sangu leen benn set ngeen dem toog tegle seen ay tànk loolu daal lañu def tey sàmm daal def ba mu baax sàmm naaru buur ama dema naar lii da la ñuy defal ñun <laughs> ah, trop kontaan suñu jëkkër ji defal ñu yaasa bu saf bu amul fenn xamul lii jafe na ci góor am na góor ñoo xam ne xamuñu lii toroxal jigéen ñu xam dóor saaga yuux moom nag mel noonu dafa jafe ci góor ñi kenn la ci ñoom ma koy may ñaanal bépp jigéen rek am jëkkër ju mel nii tonton Matar yàlla yàggal ko fi muy def lii chaque année muy dund ba gorom di ko defal lii ci darajay Seydina Muhammad. mais nag góor ñëpp mënuñu toog tey parce que moom aussi mu xam na ne étranger la étranger la nekkoon. loolu moo waral tey ñu mën toog mais am na góor ñoo xam ne mënuñu toog parce que amuñu jot boo xamante ni dina mën a toog seen kër toog góor ñooñu aussi est-ce que yéen jot ngeen jàngale. affaire bi du togg kese wax bu neex moo ngi fi. lu nee ngi fi affaire bi du toog kase gis na jigéen lu ko lu ko kontaan loo dafa yomb parce que xolu koosu yor waaw noonu la fa demee <laughs> lii mooy yaasa ginaar orne ko dëgg du neex xanaa neex saf rek yaasa géwél la yaa bëgg a xam non mosu saf <laughs> torop kontaan ci moom rek en tout cas yàlla na koy def ay déwéni déwén déwén ñu koy fekke incha allah loolu rek di ko ñaanal rek may yàlla may ko gudd fan. c'est waaw maa ngi nuyu ñëpp vraiment man la Matar Samb je crois que nii Thiès Info moom suñu suñu kër la. xamuñu ne woon ne sax dañ fi ñëw tey parce que affaire bi daf ñu bett mais lii ñu def nii c'est pas la première fois ñu def ko yàlla dafa def bi ñu demee ba desul lu dul ñu yàgg ñu seen waa Thiès Info ñu ñëw fii di rafetlu aussi seen déplacement di wax ni di encourager góor ñëpp aussi bu événement bu mel ni amate muy 8 mars képp ku ko mën rek ci anam boo ko mënee nga fexe bégal ci sa njaboot surtout rawatina jigéen ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo moom bis bi. moo tey nag dañoo ñëw ci yaasa boo xam ni bon yaasa poulet la en même temps am yàpp xar waaw loolu lañ def waaw boo depuis ce matin nag ñu ngi ci waañ bi bàyyiwuñu dara maa ngi dégg journaliste yi di inquiété ci ba xam saful xorom ba xam neex na wala déet mais xam naa ne <laughs> je crois que bu ñu paree bëgg naa ñu ñëw ñam li nga xam ni moom laa togg waaw parce que vraiment bon yàgg nañ ko def nag parce que on a fe à l'étranger euh, presque plus de quatorze ans quinze ans donc euh, foofu yàgg nañ fa togg te ñi nga xam ni xam nañ ñu te ñu dëkkoon ak ñoom xamoon nañ ni lii moom nekkoon na loo xam ni suñu suñu passion la woon xëy defar ndekki togg añ togg reex parce que kuy togg du premier janvier ba ba ba ba at bi jeex te yow benn benn benn yoon rek nga ciy togg vraiment bi ma duggee ci waañ bi fii xam naa li ñuy daj waaw ku yàq jox la pour nga lekk noo c'est pas facile c'est pas évident parce que sànq bi diwlin bi sensé ma war a def kii bi non xam naa ni jigéen ñi sonn nañ ci waañ bi sérieusement ñu la tegalati moom. bu la yeboo na nga gëmm rek lekk ko bu neexul sax danga war a gëmm lekk vraiment ay jàmbaar lañu ñu leen di encouragé di leen ñaanal aussi ñu fekkee seen njariñu njaboot vraiment et di félicité waat jigéen ñëpp di leen encouragé waat aussi ñu góor góorgóorlu tamit ci seen ci seen sëy di wax góor ñi tamit ñu muñal jigéen ñi bu baax a baax a baax vraiment di ñaanal waa kër gi di remercier Khadim suñu frère di remercier ñëpp suñu soxna yi nga xamante ne nii ñoo nekk ci kër gi bàyyiwuñu kenn ak suñu jarbaat yi nga xam ne ñoo fi nekk. ak suñu doom yi ñoo ma doon jàppale déjà maman Aïda Serigne Mbacké Amina ay ñoom Dédé Matar ñoom ñëpp ah ak maman Aïda ñoom ñii ñoo doon xolli laaj ñii di dëbb fii ñii di xam nga vraiment affaire famille la daal te neex na kontaan nañu lépp daal ñu ngi ko jagleel nañ ko jigéen ñi. di ñaanalaat jigéen ñi encore une fois yàlla defal leen jàmm wasalaam ñu fekkee ko déwén <laughs> incha allah. asalaamaaleykum war rahmatulah xam na ñoo ngi nuyu euh, waa info yëpp di jiital ci nuyoo bi le directeur Sey Latir euh, di nuyu aada ak euh, suñu caméraman bi nga xam ne ñoom ñoo fi teew. di féliciter suñu grand bi Maxtaar ci initiative bi nga xam ne tey am na ko ndax kër gi ñëpp xam nañ ne jigéen ñi. Euh, trois cent 365 jours yëpp ñoom ñoo koy togg mais tey bis bi nga xam ne moom mooy 8 mars mu jël ko togg ko te loolu lu bari lañ ci jànge daal liñ ci jànge nag li ci ëpp mooy ci kàddoom dégg nañ mu ni am na ñu bari ñu koy jàppale waaye loolu day firndeel ne jigéen ñi dañu sonn ndaxte moom dañ koo jàppale mais jigéen ñi bu ñu aayee di togg kenn ku ne yaay toggal sa bopp benn nit mën na xëy togg añ togg reer te boole ci dina fóot yére def sàngam ak sàngam yor say doom Euh, jigéen ñi dañu nekk nit ñoo xamante ni dañ leen a war a fonk ndaxte kër ak dëkk mënta jag fekk jigéen ñi nekkuñu ci condition bu baax. 8 euh, mars bi nag li nga xam ne moo ñu ci gën a tuuti te naqariñu mooy actualité bi am cees démb Medina Fall muy soxna soo xamante ni di Marème Diagne euh, ñu faat ko ay veeru 14 heures 15 heures ay coup de loolu mu nekk loo xamante ni ci 8 mars bi lu ñuy lancé appel le président de la république Macky Sall la. di wax ne euh, ñaawteef fi ñu seetlu ci suñu dëkk jar na ñu delloo si li nga xam ne sax mooy képp koo xamante ni euh, faat nga ñu faat la waaw jar na ñu delloo si waat loi boobu. parce que tey jii yaakaar naa ne ñii ñàkk seen bakkan ci yu demee noonu te dañ lay tëj kaso benn diir nga génnaat te loolu lépp nekk na loo xam ne lu ñu lu ñu lu ñu ñaawlu la daal lu ñu ñaawlu la. ci loolu aussi ñoo ngi lancé waat appel góor ñëpp pour ñu gën a xamaat. Euh, gëdd jigéen ñi euh, munuñu nag ñun euh, wax ba noppi te duñu souhaité fête bi aussi ki nga xam ne mooy première dame du Sénégal muy Marième fay sàll bu servir le Sénégal waa Thiès solidarité yëpp ñoo ngi ko koy souhaité parce que day soxna soo xamante ni aussi bokk na ci ñi nga xam ne njëkk nañu jàppale Thiès solidarité aussi di profité aussi di di di di ko souhaité suñu jigéen ñi suñu soxna yi ne ci kër gi yëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen koy feete ak suñu mag yi ak ñëpp daal ñu ngi koy souhaité ñëpp waaw di profité di ko souhaité aussi suñu benn jigéen muy soxna leen Diagne aussi di soxna aussi ci docteur Pape Amadou Ndiaye ñoom tamit ñu ngi ko koy souhaité di ko souhaité tamit jigéen xam ne yëpp tamit ñoo nekk ci Thiès solidarité ñoom collègue ñoom Ndeye Ndiaye ak ñoom ñëpp ñoom Astou Thioune vraiment ñoom ñëpp tamit ñu ngi leen koy souhaité di sargal jigéen ñëpp di wax ne nag 8 euh, mars bi tamit aada warta nekk rek loo xamante nii dafay dafay dafay yem fii ndax ni may faral di wax jigéen valeur am góor moom moo ko xam te moom moo ko war a mën a téye moom moo ko war a mën a sàmm kon tey ñoo ngi ñaax góor ñi ñu gën a góorlu bu ko defee jigéen ñi lépp lu baax lu ñu mën a am rek ñun ñu mën cee taxaw di leen sant di remercier aussi euh, say latir di ko souhaiter aussi soxnaam yi nga xam ne tamit ña ngi ca kër ga suñu DG euh, di ko ñaanal tamit yàlla defal ko jàmm ak euh, ñoom aada ak suñu jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci Thiès fo yëpp ñoo ngi leen sant leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah